ak talaaku mooy eh, passé moomu ma waxoon ne xam nga dafa ni wal mutallaqaatu yatarabbasna bi anfusihinna salaasata quru mu ni ab tala wa buulatuhunna axaqu bi raddihinna fi zalika muy nag ab talaaku passé moomu nga xam ni waxoon naa ni buulatuhunna axaqu bi raddihinna parce que mi nga xam ne seen jëkkër yi am nañu droit delloo siwaat leen ci seen biir néeg te mayewaat du am marataay ñaar rek la. bu dee bu jëkk boo ko passé passé mu jëkk. heure bu la neexee delluwaatee ci edd gi yeexagul. waaye boo ko jëliwaatee ci edd gi yeexagul boo ko fasewaatee dañ naan ñaar. muy jàpp edda nga jëliwaat ko nga jëliwaat ko ca ji jeexul boo ko fasewaatee ñetti passé nga ko. te pourtant edda gi jeexul edda gi jeexagul. mais nag li nga ko waxoon moo tàbbi. yàlla nag ni. kon ci aide mën nañ cee fase ñetti yoon. ba ñetti yoon mën nañ cee fase ñetti te day tàbbi te day tàbbi. asalaamaaleykum euh, xam naa extrait boobu nag mu ngi jugee ci benn débat boo xam ne ay nit ñu bari dañ ma ko yónnee fan yi muy wax ci wàllu fase mu nekk débat bu xaw a xoromu nag ndax fase moom dafa nekk sujet boo xam ne wax dëgg yàlla maanaam ni mu baree ci société bi ngeen di gis jamono yi ay bëri na ay rapport yoo xam ne da ciy génn ñuy wax naan ci at mi fii senegal fase nangami yoon yi lay am par jour soo maam ci at mi ça veut dire que par jour nangami yoon la fiy nekk nga xam ne fase lu fréquent la ci biir société bi te fase problème bu mag la it ci biir société bi ndax nit ñi ñu ci bari dañu am benn problème ça veut dire que suñu amee problème mu fase souvent dañuy woo oustaz yeeg li ñuy tuddee sëriñ seeg xeet yooyu di leen laaj ndax jàpp nañ ne ñooñu li ñu leen wax loolu diine la jàpp nañ ne ñooñu li ñuy wax loolu yàllaa ko wax ñooñu su leen waxee lañ leen wax dañuy jàpp ne loolu la yàlla wax alors que fase damay wax ne dafa leer naññ ci alxuraan waaye bokk na ci li nit ñi gën a tëlee àtte ndax nit ñi sukkandikuwuñ ci li yàlla di jàngale ngir àtte ci wàllu fase problème yu bari yi ngay gis ci sëy yi sëy yu bari yu ñuy jeexal ndax na vidéo bu ma defoon incha allah su vid ki nga xam ne maa wax jii ñuy wax nii su jeexee dinañ ko ci teg nga xam ne ku seetaan vidéo ba ci fin bi di nga a seetaan maa ngi ciy wax lu mel noonu ni yàlla jàngalee fase est-ce que benn nit maa ni yàlla jàngalee fase est-ce que benn nit mës naa gis sëy boo xam ne dañoo toppee noonu li yàlla jàngale ba mu mat ba ñu wax ne sëy boobu jeex na est-ce benn nit mës na koo gis te loolu ku seetaan vidéo boobu ci kanam di nga ci mën a ndax damay wax ne yàlla dafa yombal sëy jafeel fase nit ñi ñoom ñu jafeel sëy yombal fase nga xam ne li yàlla jàngale ñoom contraire bi la ñu jàngale te loolu depuis des années maa ngi ci wax xëy na ñoom débat yi la ñuy bëgg ay dajeeg ay nit di wax nii kii wax lii kii wax lii waaye lii depuis des années maa ngi ciy wax amu ci kenn ku ci xalaat ñëw débattre ci lii parce que ñoom la ñuy wax du alxuraan parce que ñaar ñi nga xam ne ñoo toog kenn ki day wut saxal li yàlla jàngale ki nga xam ne moo nekk ci extrait bi moom li muy wax moom ci boppam sax su toogaatoon déglu ko dina xam ne lii problème la te moom li ci gën a garaaw mooy day wax mel ni alxuraan lay wax te la muy wax ak la yàlla jàngale comme yàlla ak saako ndax damay wax ne alxuraan aaya dañuy mottali wante di leeralante moom su demoon ci aaya yi nga xam ne ñoo nekk ci suratul talaaq ak aaya yi nga xam ne ñoo nekk ci suratul baqara am na ci loo xam ne dana mën a leer ci moom naññ loo xam ne day wuuteeg lool li nga xam ne moom lay wax ndax damay wax ne maam mbiru maam mbiru fase rek bokk na ci loo xam ne nit su demee bàyyi xel li ci yàlla jàngale dina ko leer naññ ne waa ahlu sunna wal jamaa toppuñ jàngaleem yàlla leer naññ la koy def ndax ma day da koy leer naññ ne waa ahlu sunna wal jamaa toppuñ ci dañoo toppul njàngaleem yàlla ndax yàlla dafa jafeel fase lool ñoom ñu yombal ko lool kii moom li mu wax sax dafa jéggi dayoo ci extrait boobu nga xam ne moom lañ dugal ndax moom dafa wax ne maanaam jigéen soo ko fasee muy jàpp idda ci biir idda jooju mën nga koo jëliwaat baat boobu sax dañ ci taxaw ab dinañ ci ñëw soo ko jëliwaatee mu ñëw ginnaaw gi soo ko fasewaatee léegi dañuy comptabiliser ñaari fase te kat mu ngi ci idda lañ wax de dafa nekk ci idda yow da nga koo fase muy jàpp idda ci biir idda ji nga ne nga dem jëliwaat ko mu ñëw nga fasewaat ko léegi ñu ne dañuy comptabiliser ñaari fase soo ko jëliwaatee mu ñëwaat nga fasewaat ko su boobaa nag sëy ba day jeex kon su boobaa léegi dañuy comptabiliser ñetti fase kii na la si xidda ji nga si xidda ji léegi mu ne la kon ci biir xidda kon maanaam mën nañ cee fase ay fase te day nga léegi moom mu ne ko waa day tàbbi mu nekk lu jéggi dayo te problème bi yëpp xam ngeen li ko jur maanaam fase soo demee ci alxuraan procédure la te waa ahlu sunna wal jamaa ñoom ci kàddu lañ koy teg ñoom dañuy wax ne rek comme par exemple jigéen soo na ko fase naa la fase bi tàbbi na soo demee sax ci vidéo bi ñu ci def incha allah ci kanam di ngeen ko a seetaan nga xam ne ñoom dañuy wax ne sax jigéen soo na ko fase naa la fase ba muy ñetti yoon diggante boobu day jeex mu nekk lu yomb lool alors que yàlla da koo jafeel ñoom noonu ñu yombalee fase yàlla noonu la yombalee say mo xeetu yombal googu la yàlla yombal sëy waaye fase moom yàlla da koo jafeel ndax fase su ngeen demee ci alxuraan procédure la ñoom dañ ko tënk ci kàddu alors soo demee ci alxuraan jigéen soo ne ko fase naa la taxul fase ba tàbbi fase du tàbbi lu dul ne idda dafa mat ba ñu woo ñaari seede ñu ñëw seede leen seen tas googa loolu la yàlla jàngale te njàngale mu leer ci biir alxuraan parce que yàlla dafa wax yonent bi ne ko yaa ayyuhan nabiyu ida talaqtumu nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa axsul iddata wattaqu llaha rabbakum laa tuxrijuhunna min buyutihinna wala yaxrujna illa an yaatiina bi faahishatin mubayina wa tilka xuduudullah wa man yattaadda xuduudallahi faqad zalama nafsahu la tadri laalla allah yuxdisu baada zalika amra mu nekk ci surat 65 verset 1 yàlla dafa wax yonent bi ne ko ay yow mi ñu solo wala ba ay yow mi ñu xibaar su ngeen ni boyal jigéen ñi xam nga fase ñu ni ngi koy wax naan fase maam baatu talaaq li muy firi mooy boyal mooy sa responsabilité jeex ci moom te ci jigéen sa responsabilité du jeex ci moom soo ko fase lu dul ne dafa jàpp idda ba idda ja mat ba ñu woo ay seede nga xam ne kenn moom ni nga ko waxee ci biir débat bi jigéen su nekkee ci jàppan idda xam nga sa ci moom xam nga sa responsabilité jeexagul ci moom soo dee woon ci diggante bi da doon loolu mu leer parce que sa responsabilité jeexagul ci moom soo dee woon ci instant bi muy jàppan idda ku jigéen ka dalay doon parce que responsabilité bi jeexagul responsabilité bi kañ lay jeex mooy su jàppee idda ba mu mat ba nga woo ñaari seede ngir ñu ñëw seedeel leen loolu mooy li yàlla wax yonent bi ne ko ay yow mi ñu solo su ngeen di boyal jigéen ñi na ngeen leen boyal ci seeni idda nga xam ne seeni responsabilité na jeex ci ñoom ci seen idda su matee fa talliquhunna li iddatihinna mu teg ci ne wa ahsul iddata te kat na ngeen takk idda ja xam nga idda dafa am ñeenti façon maanaam ñaar ñi ñoo bokkule comme ki nga xam ne dafa ménopausé ak ki nga xam ne moom dafa am li ñuy xam ne moom du gis règle ak ki nga xam ne dafa ëmb ak ki nga xam ne moo ngi gis moom baax ba tey ñoom ñooñu kenn ku ci ne maanaam ak iddaam ki nga xam nag moom ki nga xam ne dafa ménopausé nga xam ne moom weesu na fi muy gisee baax ak ki nga xam ne moom du gis baax complètement maa ñoom ñaar ñoo bokk idda bokkut ak ki nga xam ne dafa ëmb bokkut ak ki nga xam ne mu ngi gis ay règle bokkut ak ki nga xam ne moom consommé wuñ mariage bi kooku moom du jàpp idda nga xam ne moom mooy ñeenteelu cas bi nga xam ne moom du jàpp idda mais loolu yëpp su ngeen seetaanee vidéo boobu di ngeen ko ci gis incha allah te vidéo bu gàtt la yàlla mu ne kon na ngeen takk daja ja te ngeen bàyyi xel seen borom yàlla teg ca benn wax laa na bu tuxrijuhunna min buyutihinna wala yaxrujna illa an yaatina bi faahishatin sati mu na mu ne bu leen génnee jigéen ña ci seeni néeg te ñoomit bu ñu génn lu dul ne dañu leen a dikkee mbonte gu leer yàlla ne leen bu leen leen génnee ci seeni néeg te ñoom bu ñu génn soo ñëwee fii ci dëkk bi li nit ñi di def kii wax nii ci extrait bi li nit ñi di def ci lay wax de xam ne soo ko fasee mi jàppee da nga jëliwaat ko léegi fan la demoon ba nga ko war a jëli su fekkee ne yow da ngay topp li yàlla wax. yàlla lu wax laa tuxrijuhunna min buyutihinna wala yaxrujna illa an yaatina bi faahishatin mubayyina lu mu ca teg wa tilka xududullah mu ne wa man yataadda xududallahi faqad zalama nafsahu laa tadri laalla allaha yuxdisu baada dalika amra képp koo xam ne da ngay bàyyi xel sa borom yàlla yàlla dala wax ne lim la wax nii bu leen leen génnee te bu ñu génn lu dul ne dañu leen a dikkee ci mbonte gu leer mu ne loolu mooy dëxal yi nga xam ne moom la yàlla tëral loolu mooy limite yi yàlla tëral te mu ne ku jéggi limite yi yàlla tëral mu ne kooku tooñ na boppam ndax mu ne xamoo ndax yàlla mën na am mu yee ci diggante ba dara léegi kii mu ne nga jëliwaat ko te yàlla dala wax bu ko génnee te mu mu génn nga xam ne moom li nit ñi def jigéen fase naa la xaaral ma woo ay seede jële say bagage dem seen kër ba léegi jigéen ñi ñoom seen bopp xaaratuñ fa loolu koo fa wax fase la mu buub ay bagage am dem te loolu moo ne bokkut ak li yàlla jàngale te loolu bokkut ak li yàlla jàngale nga xam ne kon jigéen soo koy fase da koy fase soo ko waxee fase naa la fase boobu du tàbbi lu dul ne idda ja dafa mat ba ngeen woo ay seede fekk idda ja matut ba ngeen woo ay seede mënoo leen comptabiliser benn fase mënul nekk mais problème mooy waa ahlu sunna wal jamaa ñoom fase dañ ko tënk ci kàddu soo ne fase naa la fase ga alors que su dee ci islam li yàlla jàngale jigéen soo ne ko fase naa la xamal na procédure bi tàmbali na procédure bi kañ lay mat mooy su jàppee idda ba mu mat ba nga woo ay seede su jàppee ba mu mat ba nga woo ay seede dañ naan léegi fase bi tàbbi na su tàbbee nag soo ko bëggaatee ndaw sa da koy takkiwaat lu mel noon nag ñaari yoon nga ci am ñaari yoon nga ci am droit moom moo tax yàlla di wax at talaaxu marrataani kii nag moom di wax ne at talaaxu marrataani mooy léegi jigéen fase boo xam ne soo ko fasee di nga ko mën a jalaat saa ñu la koy mayaat déedéet maam talaax du am lu dul ne procédure bi dafa mat talaax nekkul fase naa la rek déedéet procédure bi day mat sëkk ba ngeen woo ay seede ñu soog a comptabiliser benn fase yàlla nag li muy jàngale mooy jigéen ñaar yi ci nga am possibilité jëlaat ko mooy nga fase ko mu dem ba jàpp idda ba mu mat ba nga woo seede nga takkaat ko su boobaa soo ko takkaatee soo ko fasewaatee mu jàpp idda ba mu mataat ba nga woo ay seede su boobaa nag léegi ñaar yiñ la waxoon ne moom nga ko mën a fase jëlaat ko nga xam ne da koy takk ci ñaar yooyu la ñaar yooyu nag su weesoo soo ko takkaatee soo ko fasewaatee ba mu jàpp idda ba mu mat ba nga woo seede doo ko mën a takkaat lu dul ne dafa am beneen borom kër ba tas ak borom kër googu nga soog koo mën a jëlaat waaye su fekkee ne jigéen da nga koo wax fase naa la mu nekk ci procédure bi te procédure bi matagul parce que yàlla dalaa wax ne bu ko génnee te bu mu génne ça veut dire ko kon fase googu seen diggante la yéen ñaar te procédure bi matagul ba ñu mën a wax ne kii fase nga ko duñ mën a wax ne fase nga ko lu dul ne procédure bi dafa mat mooy idda ji dafa mat ba nga woo seede léegi nag su fekkee ne léegi dafa nekk ci biir idda ji fekkoon par exemple jigéen boo xam ne sax day gis baax nga xam ne ñetti cycle menstruel lañ ko wax su nekkoon ci biir procédure bi matagul mu gis sax ñaari règle ngeen dem avant muy gis ñetteel bi ngeen delluwaat xam nga foofu du am maye. loolu day annuler procédure de divorce bi ngeen nekkoon mooy mooy li yàlla di wax ne la tadri laalla allah yuxdisu baada zalika amra nga xam ne foofu amul mayewaat parce que li ko waral mooy fase bi tàbbeegul fase bi mu ngi tàbbi ci ku jigéen ki su jàppee idda ba mu mat ba nga woo seede ci la fase bi di soog a tàbbi waaye léegi fase bu tàbbeegul nit kii na la léegi mën nga caa fasewaat ay fase yu tabbi ca biir loola moom loolu muy wax fan la ko jëlee loolu jëleewu ko ci alxuraan moo tax ki mu jàkkaarloo nee na ko yow li ngay wax nii du alxuraan leneen la nee na ko du xadis mais lu ñoom loolu seen waxu bopp la waaye lu mën a xew moom la muy wax moom du alxuraan ndax yow procédure bu matagul ñu ne ci biir procédure boobu dangay ngay dem jëliwaat fooy jëliwaat yàlla ne la bul génnee ngay jëliwaat procédure bu matagul soo delluwaatee ak ndaw si kenn du la ko may. lu tax kenn du la ko may mooy sëy bi. fase bi tàbbeegul même suy jàppan it da dëñagul ci say loxo sa responsabilité jeexagul ci moom soo delloo ak moom soxlawul kenn du la ko may boobu dangeen ngeen di dellu yéen seen biir yéen la waaye nag su procédure ba matee ba ngeen woo seede su boobaa dañ la koy mayaat te su procédure bi matee ba nga woo seede ci ngay soog a mën a comptabiliser benn fase loolu bokkut teg li nit ñi di dund te moo ne lii la yàlla jàngale te li koy firndeel soo demee ca aaya ba ca topp lu mu wax fa isa balax na ajalahunna suñu jotee seen àpp ya àpp ya mooy lan mooy seen hidda ya parce que jigéen ñi bokkuñ ay hidda comme noonu ma ko waxee ko seetaan vidéo bi ci topp di ko gis di nga gis hidda yi ni mu wutee mu ne maanaam suñu jotee seen àpp ya mooy seen hidda ya su matee mu ne fa amsikuhunna bi maarufin aw faarixuhunna bi maarufin seen app yee nag su matee wax na léegi nangeen leen jàpp ci njekk wala ngeen tàqalikook ñoom ci njekk app ya léegi su matee su matee ci la ñuy soog a comptabiliser benn fase ndax lu mu wax fa isa balar na ajalahunna fa amsikuhunna bi maarufin aw faarixuhunna bi maarufin wa ashhidu zaway adlin minkum nga xam ne même seede ci fase ñëw lu dul ne idda dafa mat nga xam ne fekk idda matut munoo woo seede kon léegi kii di wax na ci biir idda ja mën ngaa jëliwaat ñëw fasewaat jëliwaat fase léegi moom kañ lay woo seede moom te idda yi matul kañ lay woo seede bàyyi fase di tàbbi ndax jigéen ji su jàppee idda ba idda ja mat ci ngay soog a mën a woo seede soo woowee ay seede nag ci ngay soog a mën a comptabiliser benn fase benn ci ngay soog a mën a comptabiliser benn fase waaye xëy daje su matut su ngeen delloo day annuler procédure bi ngeen nekk ndax àpp ba matut ba ngeen war a mën a woo seede app ba matut loolu day annuler seen procédure maanaam fase procédure la du kàddu moo koy maa nekku kàddu moo koy tàbbiloo nekkul damay wax ne fase naa la ñu ne fase bi tàbbi na ba léegi su ma la waxee fase naa la fase naa la ba muy ñett yoon ñu ne léegi suñ diggante jeex na te loolu moom la waa ahlu sunna wal jamaa yëpp di dund fan yii rek yéen a ngi gis dëkk boobu ñuy wax Dubaï ñu ne seen benn princesse moo bind ci Instagram euh, di wax ne divorcé na ak borom këram ne ko fase naa la fase naa la fase naa la ko trois fois nga xam ne comme ñoom li ñuy jàngale kooku loolu la def te loolu bokkut ak li yàlla jàngale fase naa la fase naa la fase naa la ba muy ñetti yoon loolu fasewul baa loolu tasul benn sëy soo waxoon jigéen fase naa la téeméeri yoon ci benn jotaay ku jigéen ki day jàpp xedda fekk xedda ji matut ba nga woo de fase bi tàbbiwul benn fase laa de tàbbeegul te su fekkoon da ngaa mer ba di ko wax ci diggante bi ginnaaw gi soo ko waxee balaa xedda ji di mat nga delluwaat ak moom kenn du la ko may soo delluwaatee moom day annuler procédure bi ngeen nekk léegi loolu ñan ngeen gis ñu koy pratique kii ñëw fii di wax wax yi muy wax jigéen soo na ko fase naa la mu jàpp idda ba mu mat ba ngeen woo ay seede ñu ñëw seedal leen seen tas googu ci ngay soog a mën a comptabiliser benn lu mel noonu su amaatee ba mu jàppaate da ba mu mat ci ngay soog a mën a comptabiliser ba kii nit ba nga woo seede ci ngay mën a comptabiliser ñaar ñaar yu njëkk yooyu nag ci nga am possibilité jigéen ji ngeen tas ba pare nga am possibilité jëlaat ko su fekkee nag ñaar yooyu bi mu weesoo da koo takkaat mais une troisième fois soo ko takkee une troisième fois ku jigéen ki soo ko fasee mu jàpp idda ba idda jamat ba nga woo ay seede doo ko mën a takkaat lu dul ne dafa am beneen borom kër ba tàqalikoo ak moom léegi nag procédure yu mel nii fan la ko nit ñi gis ci wàllu fase fan la ko nit ñi gis ñan ñoo koy pratiquer ci adduna bi moo tax damay wax ne fase ñaar ñoo xam ne dañoo bëgg a tas complètement ñoo ko mën nga xam ne ñoom benn yoon suñ ko tasee dañuy observer seen adda ba mu mat respecté ko kenn ki sax mën naa bëgg a dellu waaye keneen ki su bëggul du mën a nekk su demee ba mat ñu woo seede suñu woowee seede yi ñu ñëw seedeel leen seen tas googu loolu foofu lay yem waaye lii kii wax nii muy kooku nga xam ne moo nekk ci extrait bi kooku moom la muy wax saxul ki nekk ci extre boobu moom la muy wax saxul waaw te kee la muy wax ñoom ñoo ngi koy doya dal maanaam jàpp ne kooku la muy wax xamu ko te fekk ne kooku la muy wax donte mu ngi koy wut a ci ay détails waaye kooku lam koy wax loolu moo sax moom mii li muy wax saxul ndax na fase yàllaa ko jàngale ci alxuraan mu leer naññ te bokkut ak li kooku nekk ci extre bi di wax. ni nit di doxee ci wàllu fase ak li yàlla jàngale du benn. ndax dañuy wax ne yàlla moom dafa yombal sëy jafeel fase gaa yi nag ñoom dañoo yombal fase jafeel sëy yàlla dafa yombal sëy jafeel fase gaa yi ñoom ñu yombal fase jafeel sëy maanaam fase ci boppam dafa nekk mbir moo xam ne yàlla ni mu ko jàggalee ngir benn fase am rekk jafe-jafe bu mat sëkk la te su ngeen ñëwee ci réew mi ak réew yu baree bari yoo xam ne dañuy tuddoo islaam te nekk ci lu ci bari ci njàngaleem ahlu sunna wal jamaa da ngay gis ne pour ñu wax ne sëy ma sëy bi jeex na dafa yomb loolu nga xam ne bokk na ci li nga xam ne des fois da ngeen dégg nit ñi di ko wax ne jigéen soo ko waxee na ko fase naa la fase naa la fase naa la ba muy ñetti yoon sëy boobu day jeex yàlla dogal na ay jamono maa ngi seetaan benn genre reportage foofu ci Bangladesh Euh, ñuy wax ne ñoom dafa am lu ñuy wax triple talaq instantané mi ngi comme wax bii nii rek triple talaq muy triple divorce instantané xam nga ni ngay waxee jigéen ji ne ko fase naa la fase naa la fase naa la ba muy ñetti yoon te dafa am lu ñu bàyyiwul xel mooy fase yàlla ni mu ko jàngalee ngir ñu comptabiliser benn fase day nekk ci diggante ñaari nit ñoo xam ne ñoom dañoo décider complètement ngir bàyyante ndax résister bi ndax résistance bi ci boppam moo yombul xanaa mu nekk nit koo xam ne wala ñaari nit ñoo xam ne dañoo jël décision tas complètement ndax yàlla li mu jàngale mooy jigéen moo ngi ko wax ci surat 65 verset 1 yàlla dafa wax ne yaa ayuha nabiu ida talaqtumu nisaa fa tallixuhunna li hiddatihinna wa axsul hiddata wattaqullaha rabbakum laa tuxrijuhunna min buyutihinna wala yaxrujuna illa an yaatiina bi faahishatin mubayinatin wa tilka xududullah wa man yattaadda xududallahi faqad zalama nafsahu laa tadri laalla allaha yuxdisu bada dalika amra mu ngi nekk surat 65 verset 1 incha allah référence yépp aussi dina ñëw yàlla dafa wax ne ay yow mi nga xam ne yow la ñu xibaar muy yow mi ñu soloo su ngeeni boyal jigéen ñi xam nga baatu talaaq li muy firi mooy boyal mooy koo xam ne sa responsabilité jeex na ci moom jigéen nag soo ko fasee sa responsabilité du jeex ci moom lu dul ne dafa jàpp xidda ba xidda jamat xidda nag su fekkee koo xam ne par exemple dafa toll ci ménopause wala koo xam ne du gis baax moom xiddaam ñoom seen xidda maam ñetti weer la yàlla wax na wallahi ya'isna min al mahidi min nisaikum in irtabtum fa hiddatuhunna thalathatu ashhurin wallaay lam yahidna loolu mooy ki nga xam ne ci misaal weesu na fi muy gisee baax ak ki nga xam ne maanaam moom du gis baax comme li ñuy wax aménorrhée kooku tamit moom ak ki nga xam ne dafa ménopausé ñoom ñoom ñoo yem ñoom seen durée d'attente maanaam trois mois la su dee koo xam ne day gis baax ba tey li yàlla wax wal mutalaqaatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata xuru'in loolu yàlla moom ko wax ci suratu baqara ay 228 yàlla di wax ne jigéen ñi nga xam ne dañoo nekk ay divorcé nañu yeeru ci seen bopp maam ñetti cycle mais ñetti cycle menstruel mooy jigéen ñi nga xam ne ñoom dañoo toll ci gis baax su dee jigéen boo xam ne nag dafa ëmb moom iddaam mu ngi yem ci su amee doom nga xam ne su fekkoon ne sax bi muy xam na faral dégg ñu naan jigéen bu ëmb kenn du ko fase loolu wérul de jigéen bu ëmb sa responsabilité du jeex ci moom loolu mooy di wér maanaam mën nga ko wax fase naa la waaye soo ko waxee fase naa la day jàpp te xidda jooju du mag lu dul ne dafa am doom moom la yàlla wax ne wa ulaatul ahmaal léegi mu ne ajaluhunna an yadaana xamlahunna loolu moom mooy loolu mooy li nga xam ne moom la yàlla jàngale su ama tamit beneen jigéen muy jigéen boo xam ne ci misaal dañ koo takkoon te moom jotuñoo consommer mariage bi kooku moom du jàpp idda di yàlla di wax ci surat 33 aya 49 yaa ayu di wax ne yaa ayuha alladina amanu ida nakaxtuma muminaat suma tallaqtumuhunna min xable an tamassuhunna fa maa lakum alayhinna min hiddatin taatadduunaha jigéen boo xam ne moom dañ koo fase te biñ koy fase fekkul ne maanaam consommé nañ mariage bi kooku moom du jàpp hidda yii mooy li nga xam ne moom la yàlla jàngale léegi nag jigéen boo xam ne moom moom dafa war a jàpp hidda soo ko waxee ne ko fase moom dafa war a jàpp idda ba mu mat ci lañuy ñuy doog a comptabiliser benn fase te léegi ci biir jàpp hidda googa bokkut ak lii ni ñuy wax nag bu njëkk ba naan am na kilifa yi dañuy yebal ndaw si jox ko leetu soo demee ne ko soo demee joxal ñu ko sa waajur ñu ubbi ko liir ko gis ne dañ koo fase wérut de du islaam te dañuy wax ne ay kilifa ñoo ko daan def fii wérut du islaam loolu amul ci islaam jigéen soo ko waxee fase naa la yàlla dala wax na la dala dafa wax ñu góor ñi ne leen ñi gëm laa na min bu buyutihinna jigéen soo ne ko fase naa la doo ay xam nga amul ay fasanaal jëlee say bagage déedéet loolu amut yàlla dana bu leen leen génnee ñoom jigéen ci seeni néeg te ñoom it bu ñu génn lu dul ne dafa def mbonte goo xam ne lu leer la comme mu nekk lu mel ni njaalo goo xam ne dafa leer naññi ami seede leer ñu xam ne lii kat kii dafa njaalo ci lu amul benn sikki sàkk wala xeet lu mel loo xam ne daal loo xam ne daal faahisha la bu leer nag lu dul ne dafa jëf loolu yow bu ko génnee te moom bu mu génn ndax yàlla mu ne laa tadri laalla allaha yuxdisu baada dalika amra ndax xamoo nag mën na am yàlla dana am lu mu yee ci diggante bi ginnaaw loolu nga xam ne jigéen soo ko waxee na ko fase naa la yow fi fi mu nekkoon fekkoon fekkoon ne yéen a bokk ab néeg néeg boobu yàlla dana ko yàlla dala wax yow ku góor ki ne la bu ko génnee te moom bu mu génn nga xam ne mënoo faa nekk naan xaama yóbbu ko sama kër tàntaak xaaral ma dem dénkaane ko barab sàngama déedéet yàlla dana askinuhunna min haythu sakantum <laughs> na ngeen dëkkaale ñoom nga xam ne maanaam ngeen leen dëkkal ñoom ci yéen fi ngeen dëkk na ngeen leen dëkkal ci ñoom fa maanaam ci yéen nga xam yéen ñu góor ñi yéen fi ngeen dëkk fa lay dëkk ba noppi it à vos nag nga xam yàlla loolu lay jàngale léegi nag imaginer ñu ne la léegi fase nga ndaw si su ngeen bokkoo néeg mënoo koo génnee néeg ba yow yàlla dana la yow bu ko génnee te moom bu mu génn ndax yàlla mu ne mën na am mu am lu mu yee ci diggante bi am lu mu yee ci ginnaaw loolu léegi nag gis nga ba keroog hidda jooju di mat liy wax ne fa tallixuhunna li hiddatihinna wa ahsul hiddata wattaqullaha rabbakum su dee yaa ngi bàyyi xel yàlla yàlla dane yow bu ko boyal lu dul na xidda ja dafa mat te bu ne xidda nag na ngeen ko takk léegi nag gis nga ba keroog mi yegg ca xidda di mat su ngeen séqaatee su ngeen delluwaatee loolu kenn du ko comptabiliser comme fase balaa ñuy mën a comptabiliser fase mooy ñu dem ba xidda ja mat su xidda ja matee ci ngay doogo woo seede moom la wax ne fa iza balagna na fa amsikuhunna bi maarufin aw faarixuhunna bi maarufin fa ashhidu zaway adlin minkum mu nekk ci surat 65 verset 2 léegi nag gis nga lu mel nii mooy am benn yoon am ñaari yoon am ñetti yoon ñu doog a wax ne sëy boobu jeex na léegi ñaata sëy la nit ñi xam yuñ wax ne jeex na yoo xam ne demee na nii xam ne sëy balaa ngaa woo seede idda ji dafa mat fii nag dañ naan na fase naa la xaaral ma dem wut ay seede léegi ñu wax na fase naa la loolu wérul de soxna sa danga koy fase mu jàpp it da ca kër ga doo ko génnee su dee benn néeg ngeen amoon ca néeg ba doo ko génnee te moom du génn te it doo ko xatal loolu it ko wax bu ko xatal yooyu yëpp yàlla da koy wax ba loolu nag dem ba mat ba mat sëkk nga woo ay seede ci lañuy ñuy doog a comptabiliser benn loolu nag mii benn ñaar ba ñett ci la sëy bi di doog a jeex ñaata sëy ngeen xam mu demee noonu ñaata sëy lañu jeexal te mu jeexee ci nii ñaata ngeen ci xam lii nag ab question la incha allah di xaar gars yi seen tontu liñ ciy wax ñu xool ndax sëy bëri na sëy yu ñu jeexal ñoo xam ne am nañuy njaboot dem ba doon ay mag ñu naan leen sëy bi jeex na des fois ñu bëggante waat sax waaye dañ naan leen sëy bi jeex na ndax dañ koo jeexal ci li yàlla jàngale waaye dañ koo jeexal ca ñoom la ñuy wax loolu nag ab question la boo xam ne moom la ñuy moom lañ tëral nii di xaar nit ñi ñoom lan lañ ciy indi ngir mu nekk loo xam ne dina jur beneen jàngat ci nit ñi ñu xoolaat li yàlla jàngale ak li nit ñi jàngale